aousubillahi min asheytaan rajim bismillahi irrahmani irrahim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu ci ndigalu Cheikh Mamadou Mountakha mu jaar ci sëriñ Mamoor mii nga xam ne day mbokkam di wëllëreem ci liggéey bi di taalibeem ngi jëmmi sëriñ Tuuba sëriñ bi nim ko baaxoo waxee rek ànd ak bokkam yépp ci liggéey bi bokk yëpp ànd yéene ko ci ndam ba tax kenn ku nekk wet ga nga féete nga defa taxaw taxawaay bu rafet bu matale ba waxtu wu nekk sëriñ bi di wax xelam mu dal ak mbégteem ndax ni bokk yi ànd ak moom liggéey bi ànd nu matal sëkk wu rafet lool ànd ak Pastef moo tax bokkam yi itam kenn ku ci nekk am na liggéey boo xam ne dala ko féetale ci liggéey bi liggéey boobee bu ci jubloo daf lay sant nga taxawee liggéey booba loolu bu li ñu bëgg a wax mooy sëriñ Mamour mii waxoon nañ ko ci ay wax yu nu waxoon ci ginnaaw bi ñuy bañ kuy waxal sëñ bi wax joo xam ne jógewul ci sëriñ bi ñu xamle woon ne sëriñ bi day leen lu nekk am na kum koy wax loo di ko liggéeyloo ca loola waaye lépp loo xam ne jëm na ci am njàng mu mel ne njàngum alxuraan ak xasida maam Mamoor mii moom sëriñ Fàllilu moom la koy taxawloo waxtu wu ne itam sëriñ Maamoor liggéey boobu mu di ko ànd ak bokk yi àndin waafet nekk mooy waa raabitatul madaari alquraaniya bi ci dëkk bi te sëriñ di ko sëriñ basirum sëriñ fàllu jiitee ci dëkk bi sëriñ ànd ko sëriñ basirum sëñ abibu sëriñ xaali jaxati mii ànd ak ñoom liggéey booba ba tax lépp lu ci sëriñ Muntaxa defaloo sëriñ Maamoor sëriñ Maamoor sëriñ xaali mii la koy àndal naka noonu itam daayiratul muxaddamatul xidma bi nga xam ne sëriñ bi def leen di liggéeyloo ci jumaa ji ak lu ci aju muy mbirum diine rek mbirum diine bu ñu ko waxee kon bàq yàlla ci bokk wala armeel yëpp bokk ci ak jumaa yi ci dëkk bi yëpp waxoon na ne bëgguñu boole seen bopp ñu tënku ci benn tënk te boobaa itam waa mu xaddama xidma la waxoon ñu leen soñu ñu ànd nas ba waaye loolu lépp ngir bañ a guddal ci gàttal sëriñ Maamoor mii la sëñ bi yónni bëgg lam ko daan yónni ci soññee buñ jàngawaat alxuraan ñu jottaliwaat ko bëgg ñu defaat njàng mooma loolu nag sëriñ Maamoor mooy leeral nag ko sëriñ bi waxee ak na ko sëriñ bi bëggee ak na bëgg mu tëddi ne ba mu demee na mu daan demee te na mu daan demee mooy amin wu rafet wu sell wu matale woo xam ne la ci war lépp ci taxawaay danañ ko ci def moo ñii ma ko àndal nii ma la ci war ci ay pas-chef yëpp pas-pas yëpp ñu daan ko def la ci ñaan war ci ay ñaan yëpp ñu daan ko def ba luñ ca mas a ñaanit rafetees na ci njort ndax lu ca bari dañ ko daal di gis ci saas lu mel ne yàgg nañoo baaxoo mu gëj a taw mel ne dañuy soxlam ndox ñu njàng ma alxuraan mi fas ci ñaan balaa yàgg ñu gisub taw ci loolu lan mën a gëmee ne leneen lañ ci ñaanit noonu ne lay nangoo ni ni taw ba nangoo kon loolu ak xel mu dal ak rafet njort ak sant yàlla rek lañ see mën a boole kon ñu jox sëriñ Mamor mu jottali yónneenu sëriñ bi lu mu ci jottali loowaat kenn ci bokkam yi ñu bokkal ñu bokkal liggéey bi kooku la mu ci war a jot lu mu jottali ko bañ nase ko nañ ko daan dese ba tàmbali ko bisimilahi rahmaani rahim jeexale ko ci alhamdulillahi rabbil alamin auzu billahi min asheytaani irajim bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillahi waxdahu wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baadahu wa akbaru ridwaani min allahi taala ala abdillahi wa xadimi rasulihi maulana cheikhul xadim bokki jullit yi fi teew yëpp bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu maag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 pastéefub sëriñ bi sëriñ Touba ku ne xam na yéeneem ci taalibe sëriñ Touba yi ku ne xam ne yéeneem ci bokkam yi mu bokkal sëriñ Touba ko ne xam ne yéeneem ji mu am ci bokk jullitam yi waaye ku ne xam ne yéene ji am ci euh, kilifa yi diine yi nga xam ne ñoom ñoom la seqal liggéey bi lislaam bi kon nag ñoo ñaan ci barkeb sëriñ Touba lépp lu mu yéene ko ñoo ñi ma wax yàlla na ko yàlla def na ko bëggee te ñun ñëpp ñu fekke ko loolu kàddu yi la sëñ boo xam nañ ko jottali ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ko ñaanal